xarit am ni jàmm salaam citoyen di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi fi di sargal ñëpp di jox ñëpp euh, seen wàccuwaay comme ni ko tàmm di defee Moustapha la élément Bart euh, ñu ngi jox talal ñëpp loxo di nuyu ñëpp euh, di leen wax ni yaakaar naa yéen ci jàmm di leen souhaiter tamit jàmm ju sax di leen souhaiter euh, wér gu yaram xam nga sénégalais yëpp waaw yàlla nag nattoon nañu loo xamante ni baaxul si suñu réew mais nag euh, ñu ngi sargal ñëpp tey wax yàlla mu teggal ñu nattu boobu nattu moom du mën a ñàkk ci àdduna du mën a ñàkk ci nit ki mais nattu bi njëkk mooy gis ngeen suñu dirigeant yi donc ñu ñëw rek euh, ci lan pour waxtaan ak comme ni ñu koy defee waxtaan ak ñun ñëpp ñu waxtaan ak sénégalais yi waxtaan ak euh, le peuple sénégal euh, sénégalais waxtaan ak euh, ñi am ñi les gens conscients les les jeunes conscients nit ñu conscients yi yi nga xamante ni tey nekk nañ suñu réew bëgg ko di ci xaar suba développement wala di ci xaar suba lu lu positif donc ñooñu la ñuy waxal ñun waxuñoo ñi nga xamante ni peut-être seen nopp yi dafa fatt wala ñi nga xamante ni gëmuñu seen réew wala ñi nga xamante ni tey boo waxee sax ñu ne la non da nga war a noppi wala da nga war a def nii waxuñu ñooñu ñun ñu ngi wax ak ñi nga xamante ni son sont conscients ñi nga xamante ni gëm nañ seen bopp gëm nañ seen réew gëm nañ li ñu doon li ñuy wax lan la tey gis nañ fi benn feebar ñëw si suñu réew Sénégal muy lan coronavirus loolu la ñu wax ñoom loolu la ñu wax d'accord coronavirus am na mais léegi kon coronavirus xanaa bi mu ñëwee dafa woo téléphone Macky Sall ne ko man 21 heures laay dox ba 5 heures du ñun mënuñu comprendre gars yi xanaa yan diplôme lañ leen jox mënuñu comprendre nga na yow non euh, journée bi nga xamante ni tey euh, tataay yi ñu ngi dox bus yi ñu ngi dox marché yi mu ngi am rassemblement terrain de football yi ñu ngi am lépp a ngi dox nga ne yow non vingt une heures ngay tëj euh, dëkk bi ba cinq heures du matin non ay caaxaan la wallahi ay caaxaan la te tey bu ñu gisee jeune jeunesse bi wala booy yi di manifester wu man du ma ko jàppee indiscipline mais tey yàgg naa ko wax waxoon naa ko jour ba le nee na nit ku ne buñ la laajee ku la jiite noonu la sa peuple nar a euh, war a mel tey on des dirigeants faibles on a des dirigeants incompétents des dirigeants yoo xam ni xamuñu sax fu ñuy taxaw di tâtonner à chaque fois nekk ci réew mi di tatone bu ñu jël mesure di tâtonner lu ñuy def di tâtonner bu ñuy lig bu ñu naan dañuy jéem a liggéey sax dañuy tâtonner yii ñi fiy def yëpp dañuy tâtonner man xaw ma kan moo leen di xelal wala xaw ma kan moo leen di jox ay information wala kan moo leen di wax ni jël leen décision bi nii wala boog comme ni ko gars yi waxee rek ñu on est plus indépendant ñun dañuy basé wu ci France lu mu def ñu jël on un gouverneur français ñun gouverneur français lañ am tey lu français bi def lu lu waa ji def ñun dañ koy copier coller te pourtant ñoom c'est c'est un pays développé ñun développé wuñu tey am na ñoo xamante ni ci guddi gii dañuy jug vingt une heures boobu noonu wala vingt deux heures boobu la ñuy jóg dem taxal lu ñu war a mën a jox seen papa seen yaay wala lu ñu mën a dem yóbbu si njaboot gi tey am na ñoo xamante ni ci heure boobu nga tëj ci la ñuy wàcc dem ñibbi tey xoolal ni nga créé embouteillage bi tey euh, heure bi nii boo demee ci euh, autoroute à bi mu ngi fees dell ak ay nit agression di fa am lépp di fa am. kan moo lan moo ko créé parce que nee nañ couvre-feu day am vingt et une heures daw di ñibbi am na ñoo xam ne ni premier jour dañu doon dox dañoo jógee Dakar di dox ba Géejawaay pour mën a yegg ak boobu yëpp benn njiit boo xamante ni wala ay dirigeant yoo xamante ni seen xel bi dafa mel ni ndox moo ci nekk ñu jóg encore taxaw lépp di xew lépp lu fi xew ah, euh, xew ni ñu ne corona am na dañuy jël ay mesures ñu gis tey benn avocat bu taxaw ñëpp woo conférence de presse di saaga benn sénégalais avocat boo xamante ni musul sax man musul ma rappelé bi ma juddoo ba tey wala bi ma toog bi ma bi ma xàmmelikoo ba tey musul ma dégg fu mu gañee procès ah xaw ma bale sama maam yee ko fekkee woon taxaw di saaga di def conférence de presse woo yow amul amoo looy wax yow waxoo lu jëriñ réew mi waxoo lu eh, luy luy luy luy luy eh, avancé loo réew mi waxoo luy avancé loo eh, jeunesse bi waxoo ci emploi yi amul pour pour jeunesse bi waxoo ci baykat yi dee ci àll bi waxoo ci nit ñi nga xamante ni ñu ngi dem hôpital médecins yi di leen rey waxoo ci ñi nga xamante ni tey ñu ngi xiif mënuñu mënuñu lekk wala seen loxo ci du seen ginnaaw yow nga taxaw woote conférence de presse pendant des heures taxaw di saaga benn sénégalais bi nga xamante ni peut-être tey sénégalais yëpp ci moom lañu am yaakaar sénégalais yëpp ci moom la ñu teg nopp moom la ñu teg bakkan moom la ñu teg bët moom la ñu teg bopp nga taxaw di ko saaga ci mag bu jëm ci yow parce que sax loolu du ñu du ñun euh, ñun ñi nga xamante ni tey xam nañu la ci sa ñàkk dëggu xam nañu ko ci ñàkk ci mën a fenam xam nañu ko ci li nga xamante ni bu lu mu wax tey du loolu lay waxaat suba lu mu wax tey du loolu lay waxaat ginnaaw suba yàgg nañ ko fi gis dagg toog na fii dagg fi Ousmane Sonko boo ko doon saaga Ousmane Sonko man du ma tudd seen tur yi parce que ñoom jaruñu ko man tudd pour man du ma jàppee tudd seen tuur bàkkaar la pour man man bàkkaar la ci man wala dafay wàññi daf may wàññi man ñoom may tudd seen tuur daf may wàññi man du ma tudd seen tur man dama leen ignoré man dama leen jël def leen ci sën ba comme ni ko ni ko sëñ bi waxee woon kooku jël leen ko def ko ci sën bi man dama jël def leen ci sën ba te man duma jël sën. di ko tudd duma jël sën di ko jëfandikoo kon man du ma leen jëfandikoo yéen man ku may jëfandikoo tey ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sama waajur ñi may jëfandikoo mooy ñi gëm seen bopp ku mel ku mel ni Barthélemy Diaz ku mel ni Ousmane Sonko ku mel ni ñeneen ak ñeneen ñi xam gëm nañ seen bopp ñun jeunesse bi gëm suñu bopp ñoo ñu laay ndamoo man sama fierté ñoom la mais pas yéen pas yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi lool Sénégalais yi faale wu leen Sénégalais yi moo tax booy duñ leen faale tey boo gisee benn président bi nga xamante ni pour lan lan lay def jël benn sénateur boo xamante ni tekkiwul dara nee na moom jël sénateur bi neena na bi di ko fay ay ay millions wala di ko jox ay millions ci ci ci ci ndoddu sénégalais yi nga xamante ne tey am na ay boy yi nga xamante jàng yor eh, ay diplôme yu dul jeex toog ci réew mi mënuñu liggéey nga jël benn sénateur bi nga xamante ne tey ay caaxaankat jël di leen jox ay millions di leen jox ay milliards benn booy bi toog fële ne jàng ba ne ar yor ay diplôme yor lépp nga jël ko teg ko ne jël ay nit ñoo xamante ni amuñu njëriñ si suñu réew nga jël leen di leen jox alalu réew mi mais kon tey lu la booy di booy bu la booy respecté wul mënoo ci dara tey lu tax boo eh, eh, eh, sénégalais gaawul di génn di xeex de mais sénégalais bu génnee xeex nga xam ni am na lu ko metti tey lu tax booy génn di affronter poli policiers yi policiers yi ñun suñu ay duñu suñu ay noon ay citoyen lañu comme ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoo bokk ay mag ñoo bokk ay sœur tey ku ci takk eh, am na policier yi dem takki civil am na civil yi dem takki policier kon nag tey ñun duñu ay noon mais tey noon bi ku koy créer mooy kii ci nekk ci kaw te yéen policier yi war ngeen xam seen war ngeen xam ni benn nit warul tax tey ñu ñu koy jaayanteeg ñun suñu biir di ko jaayanteeg citoyen lambda warul tax ñun dañoo war a respecté suñu respecté suñu biir comme ni mu leen ko waxee am na policiers yi dem di takki civil am na civil yi dem di takki policier kon ñun dañoo war a xam ne ñun ñoo moom suñu réew tey ñi fi nekk nii jiite leen di leen jox ay ordre ngeen di def ñoom dañ fiy jóge dañ leen fiy bàyyi dañuy dem de non ala kulli la ñuy dem xom la ndax dinañ ko fekkee xom la duñ ko fekkee yàlla ñu ko fekkee yàlla ñu yàlla may talak fekkee mais xoola ñoom dañuy dem bàyyi leen fi mu am ñeneen njiit ñuy ñëw mun naa ci bokk mun na ci ki ngeen ki ngeen di dóor mun na doon mun na dooni seen njiit wala mu dooni seen beneen njiit wala mu dooni keneen ak keneen kon tey war na am loo xam ne dañ ko suñu biir tey am na ordre yoo xamante ni tey eh, am na ci yenn pays yi nga xamante ni bu fa ordre jugee pays yi gëm seen bopp laa bu fa ordre jugee yoo xamante ni tegul ci yoon duñ la faale les forces de l'ordre ñu la faale mais comme que nag tey dañoo nekk dëkk boo xam ne ni président bi moom moom assemblée bi assemblée bi comme sabar bu tas comme sabar bu tas député diw laa yow nga war a nekk député askan bi yow ñi euh, ngay wax ne man député diw laa kon euh, dëkk boobu lu fa xew dëkk boobu sabar bu tas rek la mën a nekk sabar bu tas kese la mën a nekk dëkk boo dem dëkk booy toog boo xamante ni nit ñi dañ naan la man maay député diw do député diw mais loolu man man su ma nekkoon man soo ma faloon sax pour pour non pour ma ma taxaw ne la maay député diw non non non xanaa da may dàq wala da nga may rey mais man maay député askan bi parce que askan bee ma fal je suis élu je suis pas nominé mais ku ñu nommé suba nga bëgg jàppee affaire bi ceeb bëgg jàppee affaire bi partage gato say mbokk non li nga doon wax askan bi démb dara du ci dëgg dara du ci dëgg dëkk tey boo leen taxawee naan non ñuy gis ministre de l'intérieur taxaw ci. tali bi di défilé quoi nan non maa ngi ci maa ngi ci yoon bi non maa ngi maa ngi ci mbedd bi maa ngi def euh, patrouille xaw ma la nekk ci dëkk bi di di défilé défilé la fi doon def du ñu gis ci ay vidéo di défilé te xam na fu muy dugg xam na ci yenn quartier yu muy dugg mais am na yeneen quartier du fa dugg xam na fu muy dugg xam na fu mu dul dugg mais di caaxaan. nekkee ci dëkk bi dëkk boole kook ay caaxaan di caaxaan man bi ñu bi waxoon naa leen ko fii fi laa toog samay copain ma toog ma wax leen ko samay xarit ma ne leen waa ji nii billaahi wallaahi tallaahi bu décembre bi di passé muy def couvre-feu gars yi ne ma non du du ko def sañu ko ma ne ko day def couvre-feu te boo booy dinañ révolté te gis nga nag gis nga population bu commencé di di mer ci yow di la ñàkk déggal parce que tey par exemple moom population bi déggalatuñ ko déggalatuñ ko moom lañu comme ni ñu jàppee ay ñoom ñànkoob ay ñoom Pawlish ak ay ñoom ñeneen ñi ci def comédien yooyu noonu lañ ko jàppee ay waxam kenn déglootu ko man benn ci man man moom xalaatuma sax di jël sama temps bu bi taxaw naa damay déglu waajooju noonu comme ni ko waxee man tudd seen tur sax par accidentellement laa koy def du ma tudd seen tur pour man tudd seen tur am lu muy wàññi ci man pour man tooñ naa borom bi sax su ma seen tur man nawloowu ma leen ñi ma nawloo mooy ñi gëm seen réew ku ci mel ni Ousmane Sonko ma waxaat ko ku ci mel ni ni Barthélemy ñoo ñu laa nawloo man nawloo ma ñi nga xamante ni gëmuñu seen réew gëmuñu seen bopp nekkee ci dëkk bi lu dul caaxaan couvre-feu bi amul sens amul bopp amul geen euh, coronavirus mooy wax leen ñu ko taxaw ngeen ñu ngen ne ñu coronavirus kon vingt et une heures lay dox ba ba ba cinq heures du matin ñun taluñu sax nañ ko talul sax sénégalais yi dañoo talatul sax nekk fii seddaay bii nii taluñu sax di génn vingt une heures avant ngeen def seen couvre-feu bi tëj tëjoon ngeen baar yeeg tëjoon euh, discothèque yeeg tëjoon restaurant yi à à à sept heures donc pourquoi léegi euh, rassemblement dafa amatul woon sax avant ngeen di def couvre-feu bi rassemblement dafa amatul woon sénégalais yi amuñu woon sax jot toog si mbedd bi wala di dajale woo fenn amatul woon rassemblement avant ngeen def couvre-feu amatul woon te ngeen ñu ñëw taxaw ne da ngeen def couvre-feu parce que lan parce que bëgg ngeen jàllale seen seen seen seen seen euh, suppression ville bi ngeen bëgg a def seen projet de loi boobu ngeen bëri bi ngeen bëgg a jàllale ndànk sénégalais yi du ñu yëg du ñu du ñu wax mais nag dañ leen koy wax on ne touche pas à nos à boobu ci la bokk taxaw bëgg divertir sénégalais parce que moomu leen seen bopp Séné euh, yi ñoo leen jiite ay gouverneur France ngeen loolu kese la mais fii tey. sénégalais yi ñoo leen gën a respecté feebar bi foop sénégalais ñoo gën a xam luy feebar foop ñoo leen gën a xam lan la nattu yàlla di di peser ci nit ñoo leen gën a xam lan la feebaru yàlla di peser ci nit mais tey boo leen taxawee di divertir sénégalais yi naan leen non couvre-feu vingt et une ba cinq heures du matin non ay caaxaan la ay caaxaan la tey fi ngeen di am fan la ci tali bi couvre-feu bi mu fi amoon bee passé fii koñ yi ci biir koñ yi gars yi nañuy dugg di doxantu nice après ngeen jug taxaw ne feebar bi wàññeeku na yow bi feebar bi yow bi feebar bi di amee benn cas xaw ma deux cas nga tëj nga tëjoon dëkk bi feebar bi am mille cas nga ne euh, dund leen ak virus bi te nga ñëw taxawaat encore parce que waajee ne sa patron moom moom tëjaat na yow nga tëjaat yow tamit di couvre-feu parce que lan parce que lan waye di parce que amu leen conseiller parce que xamu leen ku leen wax dëgg mais nag ñun sénégalais yi nañu jóg bu ñu bàyyi bu ñu bàyyi bu ñu setaan waaj yi di ñu tooñ. waa ji mu ñu tooñ waa ji moomul ñun ñoo moom Sénégal ñun ñun ñooy Sénégal waa ji suñu employé la ñun ñoo koy fay waa ji suñu employé la de employé la moom mindaan bi nekk si kër gi di liggéey ñu koy fay mu ñoo yam moom ak menuisier mu liggéeyal la sa sa sa sa ñoo yam moom ak mécanicien bi nga dem pour mu defaral sa oto ñoom ñaar ñoo yam employé sénégalais yi la bu. bés bu génnee àdduna xaw ma maa koy jiitu wala moo may jiitu dañ koy dañ koy jaga jaga de yóbbu ko fi ñu ko war a suul suul ko fa du amul su amul suufu président bi la amul suufu euh, baadoola bi fee la amul suufu euh, Sénégal lambda bi fee la ñun ñoo moom Sénégal ñun ñoo Sénégal yi ngeen di gis ñi yëpp nongo mersi dañuy rawale xaalis bi du ñoo suuragul peut-être feebar am na d'accord ok ngeen ne feebar am na ngeen ne feebar am na ok nice mais bàyyi leen Sénégalais ñu dund bàyyi leen Sénégal am na Sénégalais ni ñuy dund au jour le jour bu ñu du ñu wala euh, ci guddi gi la ñuy dem di taxale pour jox seen papa yi seen yaay ñu dund jour bee maa ngi dégg ñu euh, tudd manifestant yi booy bu ñuy lu ñu doon wax amuñ lu ñu lekk borom cere bi wàcc na borom cere bi tey dafa teel a ñëw heure bu ñu fay ñëw fekkuñu ko fa. mais da ngeen foog ni yéen ni ngeen mel wala yéen boo leen tourné gis saako ceeb fële boo leen tourné gis saako dugub ah booy marchand ambulant yi di génn di dox di wu di ko di jaayante seen bopp gënoo leen gënoo leen marchand ambulant yi di génn di ko taxale gënoo leen ñu ngi nii di dox mais nag ñun ñoo ko war ñun ñoo suñu Sénégal ñoo ko moom ñun ñun ñoo ko moom moomu ko de ñun ñoo ko moom may may lancer waat appel sama mbokku policiers yi man dama takk der dama koy respecté takk der dama koy respecté parce que sama baay bi ma yar bi ma jur jox ma éducation bi ma am ci man ba tey may respecté sénégalais yi homme de tenue la mais kenn du ko musu ko dugal ci yenn yi nii gëmuloo ma sama bopp ne ma doom gëmal sa bopp bul topp kenn ndax alal bul topp kenn. ndax pouvoir ndax lépp ay jeex lépp ci suuf si lañ jëm ana ñu fi nekkoon les plus puissants au monde faatu nañ fa yàlla aw yàlla nañ yàlla yërëm ana ñu fi nekkoon tey borom alal yu bari yi nañu kon tey mënuñu gis benn jeune boo xamante ni il est né avant l'indépendance ñëw taxaw tey amoon yaakaar ci yow nga taxaw du ñu wor di ñu jaay sa ay mbokk sa ay xarit sa ay doom tey ñëpp amoon yaakaar ci yow rakk mag yaay papa di sonn ngay romb ci mbedd bi ñi ngi di la interpeller di la interpeller may ma 1000 francs koo ci may 1000 francs mu yaakaar ni may nga ko àdduna ak alaaxira koo ci may 2000 francs mu may foog mu foog ni may nga ko euh, dépasse àddunaam àdduna bi Sénégal metti tar ngeen di romb di jox parce que xam ngeen ni loolu noonu ngeen di def di xiifal sénégalais yi di xiifal population bi bu subaa boo leen soxlaa dem jox leen ay ceeb jox leen ay 10 000 jox ay quinze 000 yoo xamante ni buñ ci xefee mu jeex après ngeen dem seen yoon nax leen gëmuñu loolu quand on voit Sonko qui prône quelque chose qui est positif taxaw na ñëw leen ngeen def ci démarche sénégalais yi ñëw leen ngeen def ci loo xamante ni war naa mën a génn wax ak sénégalais yi sénégalais yi ñëw fekk ci koko parce que parce que il est positif quand on voit Barthélémy Diaz taxaw tey bu ñëw mu ñëw ci secours secours waaw wakaam yi ba tax tey loolu rek tax tax na moo tax tey nga génne 10 millions jox leen ko ku ne mais 10 millions sax da leen satisfaire 10 foo amee kër fi fa nga amee kër loolu xanaa boo ko loué ci appartement vite fait mu jeex 10 millions ku ne te bu bul woon intervention Barthélémy Dias doo ko def bi mu leen jëlee fat leen euh, yóbbu leen ci ci loo xam ne ñoom ñoo ko moom parce que ay sénégalais lañu yóbbu ci centre euh, Liberté 4 ñoom ñoo ko moom de ñoom ñoo ko moom Barth li mu def wareefam la. ñoom ñoo ko moom bar jàppale wu leen dafa jàppale dafa def wareefam te nit ki nag bu la lebalee bor nga fay ko kon loolu sa sa devoir la da nga war a def du ndam mais yéen xamu leen ndam yéen xamu leen ndam yéen xamu leen kii ay quand quand j'entends parler ñu naan euh, non Macky jàppale na senegal jàpp comme jàppale muy devoir am tey bu génnoon bu génne woon bu defoon Sénégal mu doon mu doon mu doon mu ëpp États-Unis sax. devoir waaram la jàppalewul kenn de dañ ko fi teg pour mu def ko mi la fal pour nga def ko kenn falu la fenn kenn falu la pour nga ñëw fii di euh, pour nga euh, kenn neexalu la ñun neexaluñ la ñun peut-être nag ñi nga xamante ne ay complexe ñu ay ñoo xam ne gëmuñu seen bopp gëmuñu dara wala peut-être yaay tooyal seen ñeex wala yaay tooyal seen ceeb ñooñu ñoo fi nekk di la raamal de mais ñun duñ la raamal de duñ la raamal de. te barki al wax naa ko nee naa la man soo ma woowoon ci kas man soo ma woowoon man ci pet woo ma jox ma un milliard billaahi wallaahi taalaahi ma séddalaat ko Sénégalais yi man soo ma woowoon ci pale boo ma joxee billaahi dinaa jël te su ma jëlee su ma génnee dinaa damay damay woo journaliste yëpp ne leen xaalis bi ma Macky Sall jox mu ngi nii delluwaat ko ci Sénégalais yi billaahi daf ko man maa ngi nii man man laxatuwuma ci nëbbuwuma ci billaahi boo ma woowoon ci pale jox ma dix millions wala nga jox ma un milliard ma gën tasaat tasaat ko ci sénégalais yi waaw ah, su boobaa doo ma man duma duma lekk alalu réew mi gëm sa bopp nag mooy moo lay waral moo lay tax nga euh, nga def ko walla gëm sa bopp moo lay tax nga am nga moytu yenn doon baadoola yi nii mais nag quand tu es entouré par des ñoo xamante ni c'est c'est des incompétents de des des des ministres yoo xamante ni toog fii di saaga lañ fi nekke wala des des ministres yi nga xamante ni des députés yi nga xamante ni toog di saagante lañ fi nekkee wala euh, di acharné wu ci benn nit ci benn nit nag parce que tu as pris ci ñaar nit sax laay wax parce que fii ñaara fi nekk ci Barthélémy Dias la ak Sonko parce que tu as pris dealers yëpp comme comme tu l'avais dit jën yëpp nga jël dajale si biir jënu parcelles yeeg jënu Thiès yeeg ah jënu jënu jënu AFP yeeg ñëpp nga jël boole ci benn gouvernement boole leen ci sa biir <laughs> non looy looy def léegi looy def jën yëpp nga jël boole mais nag ñun ñun ñi nga xamante ni ay gor lañu yàlla sàmm ñu yàlla bëggal ñu boppam ah way ñu ngi am ngor ba léegi ñu ngi am ngor ba léegi de. te duñ ci dañ illaa yawmi diin te fu ñuy jëm ak ñi ñu fi dese ñi nga xamante ni ñaar ñooñu fi dese ñooñu muy Ousmane Sonko di Barthélémy Diaz Thierno Bocoum su may lim ñaar damay wax ni ñoo parce que ñooñu lañu ñu gars yi gën a ràññee mais am na ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci suuf. ana ñoom Guy mari saaña ana ana ana ana Karim Xurum Xaax adu ah, Abdou Karim Gueye ñu ngi leen di jaar gis seen taxawaay ci réew mi. gis nañu seen seen seen gëm-gëm ci réew mi Guy Marius Sagna Abdou Karim Gueye ñi am na ñeneen ñi gérer ay mouvement am na ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ñu ngi def ay live ñi ñu ngi def ñu ngi ci Facebook bi ñi ñu ngi ci YouTube bi ñu gëm seen bopp moo tax tey ñu koy def mais bu du woon leneen dañuy toog jàpp seen njàmbur tey man peut-être am naa lu ma suturloo maa ngi sant yàlla alhamdulilah bilaay walaay am naa lu ma suturloo tew ma kër kenn dafa fëgg alhamdulilah te yàlla na yàlla euh, motali maa am maa am lu ma suturloo am naa lu ma toogee peut-être weccit bi nga xamante ne tey su ma soxlaa benn bonbon bi jar téeméer naa dem jënd ko wala bonbon bi jar cent franc wala bonbon bi jar cent cinquante ma dem jëndi ko peut-être yàlla jox na ma lool mais am na koo xamante ni il est fin fond du Sénégal di sonn ana vidéo maire yi nekk Thiès bii ñaari ñaari maire yooyu nga xamante ni ndeysaan nee na day togg kilo ceeb nee na jimbo la ciy def pour mu mën a saf-safal ko jimboo la ciy def pour mu mën a saf doy na waar waxal ci ñi nga xamante ni récemment sama benn jigéen ndeysaan kiss la am kiss dem ci hôpital yi ñu defal ko euh, ñu defal ko <laughs> anesthésie générale kiss la am kiss ba rey ko doomu jàmbur barki démb sama jigéen la rey nañ ko nii vite fait waxal ci sam médecin yooyu di def di def euh, di rey nit ñi ci lu jaaduwul ci au vingt et unième siècle ñu ngi ci deux mille vingt un ay médecin di piqûre nit ba muy ba muy ba muy wàcc liggéey moo tax ma ni man ku ma romb ak vaccin moom loolu la du ma du ma ci débat ku ma ñëw naan ma waxu vaccin moom maa ni maag yow moom xam naa ni jour woowu moom ci lay gën a yomb sax gars yi ne ma ciix yóbbu dugal waaw mais dama sénégalais encore une fois ñun ñoo moom suñu réew ñun ñoo moom Sénégal ñii ay employé Sénégal dong lañu ñu dara dañuy liggéey Sénégal comme ni mu la ko waxee comme ni jigéen bee di daani dooleem ci biir kër gi di liggéey di raxas bool di togg gënuñu ko moom ak ñoom ñoo am ay employé dong lañ leen di fay gënuñu leen de waaw gënuñu leen quoi. donc nag ci loolu lañ doon wax di wax ni sénégalais encore nañu yeewu dañu gëmaat suñu bopp dañu gën a dëgguwaat ci li ñuy def gën a xamaat ni ñun avenir u Sénégal ñun la ñun la ñun jeunesse bi ñun la ñoo moom réew mi ñun la du suñu papa yeeg suñu yaay ñoo ñu jugal dem xeexal non non ñun ñooy ñun ñooy jug xeexal suñu bopp man daw ma daay ma maa ngi fii sama Sénégal laa nekk fii dundee fii laay teddee alhamdulilahi rabil alamin te noonu laa ko bëggee samay moroomu jeune samay moroomu mag samay rak ñëpp teg tekki tey si suñu réew dund tey suñu réew suñu réew naat ñu fi tekki ëpp ñu xel réew yi fi développé ëpp ñu maayen mais nag dañu gëm suñu bopp xam ne ñi ñu fi tekk ca sën ba lañ leen war a yóbbu ca sën ba ci sën ba la ñu war a yóbbu nongo nongo baxaw jàlloo voilà erreur médical la ñu def billaahi bërki démb sama jigéen kist la am kyste laa la kyste xam nga euh, vingt et unième siècle bi <laughs> dañ lay opéré nga demaat liggéey kyste ñu faat doomu jàmbur ci erreur médical dem defal ko euh, non c'est incroyable nañ wax ci loolu nañ wax ci docteur yi nii di rey nit ñi nañu jël nañu jël ay mesures ci yooyu noonu moo gën ñu nekk fi naan dañuy génnee ay ar yow chaque jour ñu dégg fi nit ñi kii diw rey na keefee agression am na fële fii diw ñii ñu ngi jaay lii ñii ñu ngi jaay drogue fii ñu ngi def lii ñu xam ko bu baax te juguñu mais parce que yàqamti nañu booy yi génn booy yi nga xamante senegal yàqamti génn yi génnaguñ de ñu war a raag dëgg génnaguñu te bés dina ñu génn ñu génnaguñ de ñi ay booy yi génn nii rek ñu war a raag génnaguñu parce que yéen nag yéen a woo sax sénégalais yi pour ngeen pour gars yi raag parce que di jël ay mesures yoo xamante ni ay caaxaan la di noot sénégalais yi noot ñu respecté leen sénégalais yi non respecté wu yi même pays développé yi sax balaa ñu jël mesure dinañ ko jël 4 jours wala 5 jours avant mais yow jékki-jékki rek na teel jël say mesure rek teg. jël say mesure rek teg yow yow waxoon ni sax dans trois jours quatre jours préparé wu leen wala lii sax wala jënd leen lii wala lii non xëy rek ni suba non comme buur comme royaume c'est inadmissible mais nag ñu ñoo koy gis nga mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam booy bàyyi leen di indiscipliné wuñu fenn booy génn di manifesté wu kenn indiscipliné parce que dañoo dañoo dañoo gëmatul ñi fi nekk amatuñ ci ñoom respect parce que lu ñu wax mu dañ topp français yi loolu mënul di di mënul di di nekk à chaque fois lu français bi wax nga def ko mënul tombe mënul tombe à chaque fois mais c'est parce que booy ñoo ñoo amatul ñoo amatul benn benn benn benn euh, considération ci ñi ñu jiite da ngaan da ngaan gis euh, ancien ministre yi nekk ministre bu daan génn di wax da da ngay daw si ko ñu bi ñuy nekk jeune ministre buy wax da ngay daw seetaani ko parce que nga xam ni kii buy wax sax dina am njëriñ ci yow député bu daan génn wala di kii da ngay daw kenn du la woote yaay daw dem seetaani ko wala nga déglu ko rajo ni ay eh, diw may wax mais léegi nii man dama xamul sax ministre man ministre xaw ma ci kenn wallahi xaw ma ci kenn ku dul waaj yi ñu li ñuy wax nii xaw ma joom la xaw ma kenn xamul boo xoolee laa ci laa ci mais ministre yi xaw ma ci kenn kenn kenn kenn. wallaahi xaw ma ci kenn ñi ñee sonn ñi ñee sonn sont fatigués mel ni yéen doo leen dee mel ni doo leen dee mel ni yéen euh, yéen da ngeen di dund en l'infini da ngeen ko dund quoi yéen da di dem sénégalais yi nekk fii ñi amoon yaakaar ci yow encore une fois amoon yaakaar ci yow ngay décevoir sénégalais yi de plus en plus de da ngay xëy di gën a décevoir sénégalais yi saa yu amee yaakaar sax ni waa ji dina kii changé day xëy di gën a di décevoir sénégalais yi man say discours du ma ko déglu sax parce que gars yi ba ñu naan commentaire ci lii wala waxal ci lii man du ci wax parce que du ma dé ma déglu say discours man dama laa suur kël kël kël kël du ma la déglu du ma la xool fu ma la romb ci journal dama lay. sànni fu ma la romb ci télé bi damay zappé jaar fee ma dem seetaan yi ñeneen ñee ma gënal fuuf du ma la déglu du ma la xool xaw ma sax ne yaa ngi fi boo bëggee dégg-dégg xaw ma sax ni yaa ngi fi sama bopp sax la jàppee président man man pour man sax man maay président man parce que man man maa la gën a yelloo sax nekk président parce que maa la. maa la gën a bëgg sama réew quand on voit de de des gens qui étaient ci ci réew mi jugee Thiès taxaw démb non gars yi man gars yi gars yi est-ce que am na njaboot est-ce que gars yi seen doom yi dinañ leen conseil est-ce que gars yi seen cousin yi wala seen mbokk yi ñi nekk ci suuf wala dañ leen ragal wala peut-être dañ leen di tool seen ñeex tamit moo tax ñoom tamit amuñu amuñu amuñu sañ-sañu wax taxaw un ministre xaw ma Yankhoba Diattara xaw ma maa maa ngi juum sax man waruma sax tudd seen tur taxaw bërki démb di wax ci Macky Sall lu garaaw ñëwaat tey nee bi muy gis waaji moom Macky xaw ma bi mu ko gisee nee musul gis ni ku ku bëgg ku gën a bëgg Macky Sall <laughs> réew mi non non de vrai comédien billaahi tegoon ñànku ak ay waaju baax sax ci réew mi moo gënoon fuuf de vrai comédien ñi ñoo dàq comédie fuuf man nit war naa jomm sax li nga wax démb ngay waxaat leneen nit ñi xaa duñ tiit man dama xamul ndax duñu tiit ils sont obsédés par le pouvoir xaalis koppar alal alal lu dul yóbbu jëndoo ko moomoo ko liggéeyoo ko ñaxoo ko moo tax nga jaay sa ngor jaay sa dignité man de santé ak wérgu santé wérgu yaram ah euh, jàmm gudd fan moo ma gënal ay milliards ak ngor waaw yàlla ma yàlla di may ngor ba may ba may ba may faatu man yàlla bu ma mës a gore di ci sénégalais su ma naree gore di ci sénégalais yàlla ma yàlla yóbbu fu ko neex nag maa ngi ñaan yàlla di gën di gëm sama bopp maa ngi ñaan yàlla di gën di xam sama bopp parce que dama am ay waajur yi nga xamante ne dañ maa yar ci gëm seen bopp. yar ma ci dëggu yar ma ci loo xamante ni euh, doo sàcc fen mais nag comme ni ko mag bi waxee woon yarin dafa baax ci doomu aadama kilifa du ci alal kilifa du ci alal kilifa du ci pouvoir kilifa du ci ndombal tànk kilifa xamul ci lan la ci xool la kilifa ci maayin la ci ni ngay doxalee la kilifa ci ci ni ngay doxalee la ci ni ngay ci ni ngay réagir la loolu la ñuy waxee kilifa mais kilifa du ci ndongal du ci ndombal tànk kilifa yi ñoo fi nekk rek di di di nax xale jigéen ñi képp ñi ngay wooyee kilifa ñoo fi nekk di nax xale yu jigéen ñi képp ñi ñuy wooyee kilifa ñoo fi dóor xaalisu askan bi ñi ñuy kilifa ñooy ñooy noot askan bi ñi ñuy wooyee kilifa ñooy wër di fenn nit ki mën naa am 60 ans te du doon kilifa. nit ki nekk am vingt ans am vingt cinq ans doon kilifa kilifa mu ngi ci li nga ça dépend ci li ngay wax kilifa ça dépend ci li ngay ci li ngay dox kilifa ça dépend ci li ngay li ngay dundee ça dépend ci nga yaree sa njaboot loolu kilifa mais kilifa du du du sàcc réew mi kilifa du noot askan bi toog du toog ci sa kilim boo tourné te leer li yow lii nii. moomoo ko yow lii nii liggéeyoo ko leer na la ko yow boo tëddee à ton âme et xam nga ni lii moo ko liggéeyoo ko ñàqoo ko ci ndoddu sénégalais yi nga ko doxee mais boo boo jugee romb ak say 4 x di jaay ni yow yaay kilifa peut-être am na ñi nga xamante ni yenn sénégalais yenn laa ñi nga xamante ni gëmuñu seen bopp wala ñi nga xamante ni euh, peut-être dañoo xaw a euh, complexé di la tàccu. wala di la di la di la di la di la ñëw sax di di taxaw sa buntu kër boo ma ko naree def yàlla naa faatu su ma naree taxaw ci benn eh, diggu benn ministre walla député di waaw yow sawaay wekk leen sénégalais yi sénégalais yi ñoo leen jox réew mi yàlla yàlla mooy yàlla mooy fal dëgg la mais yàlla seet ñëwul lañ ne la tëmbal tëmbal la ci ci sénégalais yi ne leen yow yaay yow yaay yow yaay président non non yi ñoo yeewu jël seen carte dem vote ji fal la muy premier bi nag laa ko euh, mer ba doo xam ne lay bi ngay njëkk a falu sénégalais yi ñoo jóg dem votel la mais deuxième bi dara leeru ci ay sàcc kese la boo gënoon carte yu leer jox sénégalais yi boo gënoon carte d'identité yu jox sénégalais yi boo génne woon euh, boo boo tegoon affaire ci transparence xale yi euh, boo yi dem voté ci normal mag ñi dem voté ci normal kon tey kenn dootu ko ba nga nammee toog Sénégal lu ma la wax di bu ko gëm te ni ma la koy waxaatee organiser élection yi dañu dem te yow ñeme nga yow mbër nga ne nga yaa fi mën mbër boo fi mënee da ngay bëreeg nit ñi da ngay bëreeg sa morom yu mbër daan la ñoom ñëpp ñu xam nit ñi xam ne yaa fi mën yow nga ne politiciens yi fi nekk yaa leen mën organiser ci carte yu leer. jox sénégalais yi seen quarante ubbi urne yi nit ñi dem vote ji ñu wàllu ni billaay walaay ñu wàllu ni sénégalais yi yëpp waxuma la sa sën ba sax mais ca force ba lañ lay dugal yeah mais nag ñoom jaruñ sax waxal man damay waxal li may waxal mooy sénégalais conscient yi yéen sénégalais conscient yi man yéen laay waxal ñun ñoo moom suñu réew surtout ñun jeunesse bi suba ñu ñoo fi ne ginnaaw suba ñu ñoo fi ne buñu yàlla mayee gudd fan ak wér ñu fi fii ñëw fekk ñoom dañuy dem dañuy daw sama mbokk policiers yi encore une fois ñu leen di jox ñi leen di jox ay instructions ngeen di dal ci kaw population bi xam leen ni ñoom dañuy dem te gis nga ñeen ñooñu ngeen di dóor seen ay frère lañ seen ay rakk lañ ay mag lañ seen ay yaay lañ seen ay papa lañ ñoom tamit suba mën nañu doon ñu quelqu'un ci dëkk bi te ñaan nañ yàlla bu subaa ñooñu ñu développer réew mi ñu yóbbu réew mi fu sore sore sore fi nga xamante ni ñii ñii nga xamante ne ay défaillant lañu ñi nga xamante ne considéré wuñu sénégalais yi ñu jëlee leen fi jëlee leen fi jëlee bu gaaw bu set parce que tey erreur mënul weesu erreur mënul weesu man sama erreur bi ma gën a metti ci àdduna mooy waaju jiite ma mooy waa ji jiite ma looloo ma gën a metti ci àdduna li gën a metti sama bopp metti li metti bopp li ma def muy bopp bi metti muy migraine muy ah, <laughs> xaw ma nga tooy wala sa bopp di metti wala nga nga sonn noonu la discours waa waaj waa ji wax wala su ma gisee noonu lay mettee sama bopp kon maa ngi ñaan yàlla yàlla ma yàlla teggil loolu yàlla ñu yàlla teggil loolu ñun sénégalais yi teggil ñu ko yóbbul ñu ko sa sën ba sànni ñu ko sa foos ba yàlla indi ay jeunes conscients yàlla ñu yàlla euh, mayal taxawaay ci Barthélemy Diaz mayal ñu taxawaay ci Sonko mayal gudd fan ak wér yàlla may leen seen xel ak seen kàttan ak seen gëm-gëm bi ngeen am yàlla motali leen ba tey bu subaa ngeen mën a changer réew mi ak ci ñun ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi gëm suñu bopp parce que ñun ñooy senegal ñun ñooy Sénégal man maay Sénégal yow yaay Sénégal ñun ñooy Sénégal Guy Marius Sagna euh, yeneen mouvement yeeg ñoom Karim Xurum Xaax ñoom ñëpp ñu ngi leen di bégee ci raag bi ci xeex bi yàlla ñu ko def ci gëm-gëm kese bu ñu toog fii rek tamit di wax di wax. ku ne buy wax na ko def ci gëm-gëm bi bu subaa affaire yi neex ñu fàtte sénégalais yi man du ma mës a fàtte sénégalais yi yàlla naa mës di nekk ci Séné ci euh, euh, ci côté sénégalais ci côté peuple bi yàlla naa mës di nekk ci côté peuple bi naa dem ba peuple bi tollu tey foo xamante ni tey sama Sénégal dafay naat sama Sénégal tey duma gis ay euh, peut-être mënul ñàkk wala dinaa gis duñ koy duñ koy waxatee ñàkk liggéey bi ñàkk. mun naa gis corruption bi ñàkk euh, wàññeeku bu baax a baax a baax a baax a baax donc loolaay ñaan man sama sama sama sama maayen loolaay ñaan ci sama xel loolaay ñaan ci samay ci samay kaddu loolaay wax ci man yàlla naa dund ba fekk ci bu ma yàlla bu ma dem ci pouvoir wala yàlla bu yegg ci pouvoir di fàtte sénégalais man xalaatuma ko sax yàlla bu kenn xalaat nekk ci pouvoir di fàtte nit ñi ñi nga xamante ne tey bu démb boo soxlaa woon ci ñoom nga doon dem donc on dit tout le monde tous les sénégalais que nañ jàpp ni ñu ñooy suñu président bopp sax ñu ñoo moom suñu réew ñu ñoo moom Sénégal fii la ñuy des fii la ñuy moom ñoom dañuy dem bàyyi ñu fi ñu ñoo moom Sénégal que ñu nekk bitim réew que ñu nekk feneen ñu ñoo moom Sénégal ñu ñoo ko moom. li étranger yi dugal ci Sénégal euh, euh, gouvernement bi defu ko li étranger yi li euh, moodu moodu yi dugal ci Sénégal gouvernement bi deful xaaj bi kon nag ñun ñoo moom Sénégal. ñun ñuy fay impôt ñoo moom Sénégal ñun ñooy sénégalais yi ñun ñoo moom suñu république bi ñun ñoo moom pale dañoom dañ fa loger rek ñu ci ñoo leen dugal ñoo leen di fayal pale bi ñun ñoo leen di fayal pale bi donc sama gaa yi loolu la woon di wax ni loolu la euh, loolu la ñu indi woon ci euh, sujet yi comme ni ñu ko waxee ma tëjee ko rek couvre-feu bi amul benn sens coronavirus doxewul vingt ba six heures ba cinq heures du matin non non bu fekkee wàllante dafay am rek suba si la am. loolu ay caaxaan la da ngeen di caaxaan beneen bi ci topp ministre de l'intérieur taxaw fii naan day défilé défilé de mode défilé de mode ñu ngi koy dem xooli ci xale jigéen ñu rafet yi waaw ñun défilé wuñu gëmuñu leen sax beneen bi ci topp ay ñu gis benn député bërki démb taxaw fii nii di saaga benn nit benn citoyen benn avocat safurla taxaw naan dafay saaga benn citoyen un député élu ki nga xamante ni élu nga taxaw di ko saaga di wax ci moom lu ñaaw xale bu ndaw bi nga xamante ni yow bi ngay teg bi ngay bi ngay xam ci politique kenn xamu ko woon tey mu ñëw sonal leen nga taxaw def conférence de presse jël sa temps bi sa doole jeeg sa euh, karam gu kenn xamu lu muy nuróol taxaw di xas koo xamante ni wala di saaga koo xamante ni dàllam sax moo la gën doxin dàllam moo la gën doxin laa la wax taxaw di ko saaga jël euh, nga ne yow kilifa nga doo kilifa kilifa ci xool la ci xel beneen bi ci topp mooy lii ci couvre bi bokk na ci lenn maa ngi ko wax fii tey bokk na ci jéem a naxasxal sénégalais yi ba supprimer ville loolu rek loolu kese la loolu tam ci la bokk président bi nga xamante ni tey euh, sinap day sinap président bi nga xamante ni tey nga war a di xëy di liggéey ngay woo benn sénateur boo xamante ni tekkiwul dara ci réew mi mu lay sinapal wala pour ngay am ay kenn xamul kooku kooku dan naka la ko booyee wegee booy duñ la jox cër duñ la mës a jox cër ci àdduna beneen bi ci topp mooy xamalan waxal ci médecin yi ray sénégalais yi waaw waxal ci médecin yi ray sénégalais yi bërki démb sama jigéen lañu faat fii ndax lan ku am kiis nga koy defal ay yooyu piqûre boobu